loolu nag euh, lu ñu doon xaar la. Mhm. Euh, parce que régime bu daanoo beneen jóg moom. Mhm. lu mel noonu bu ci amulee mooy événement bi mais bu amee moom du du événement. Mhm. kon loolu naturellement loolu rek lañ ci waroon euh, mën a mën a séentu. mu nekk loo xam ne itam jàpp naa ne ah ba léegi nii ñoom ñu ngi topp seen logique ci projet bi nga xam ne ñoom dégagé nañ ko. di ko wutal ay piliers yoo xam ne jàpp ñoom jàpp nañu ne. ñoo ko mën a doxal. Mhm. alors ci nomination bi euh, danaan gis ni kat des fois kii di Ousmane Sonko ak wala kii di Bassirou Diomaye Faye danaan wax ni yenn poste yi nag pour nu tabb fa nit dañuy amal li nga xam nag moo di euh, moo di appel à la candidature gis ni euh, démb nomination yi jaareewul ci li nga xam ne nag moo di appel à la candidature boobu est-ce que nekkul dafa nomination dafa nekk en urgence moo tax nu doxalee ko noonu. bu fekkente ne dañ ne woon yëpp appel à la candidature la loolu. Mhm. man duma ci duma ci d'accord. parce que peut-être nag mën nañ jox occasion sénégalais yi ba mm-hmm. égalité de chances am mm-hmm. nga xam ne ku am capacité mën a doo mën a joxe dara ci réew mi mm-hmm. nga ñëw nga joxe ko li nga jàng nga nga nga nga tuur ko ci réew mi mu jariñu ci loolu moom occasion boobu waruñu ko bunt boobu waruñu ko fatt nga xam ne yëf yi du pàccoo waaye pencoo la ñu yaatal géew ba nga xam ne capacité yi Euh, concurrence bi yëpp mu ngi nekk ci ci ci euh, kii gën a mën. Mm-hmm. rek nekk ci place la personne qu'il faut à la à qu'il faut. Mm-hmm. loolu lu ñu lu fi war a nekk la te lu fi waroon nekk la. Mm-hmm. Euh, loolu nag dama jàppaar ne waroowul juunoowul. nekkul contradiction avec. Euh, nga ta gis ay postes yoo xam ne da ngay tànn ne diw mi mën na nekk fii diw mi mën na nekk fii parce que keneen bu mënee gis. Euh, keneen ñiy gérer itam mën nañu gis ñoo xam ne gis nañu ne kii baax na fii bu boobaa itam bu ñu defee loolu ci sama gis-gis du woroo. ak euh, ubbi bunt bi ba nga xam ne. képp ku am possibilité wu mën a servir réew mi rek. ñu servir nga servir ko ñu bañ la koo xañ. parce que anecdote bi ma la ciy wax dafa amoon benn rencontre bu ñuy nettali rencontre internationale homme d'affaires yi ñoo ñoo daje woon. Mhm. am ku ci posé question ne leen ban suuf moo gën a bari richesse. Mhm. ci àdduna bi. gars yi di xalaat Amérique latine mel noonu fi jamaa yeeg fi mhm. jamaa yi nekk ak yooyu mu ne leen jarul sore mooy cimetière yi. buñ la <laughs> buñ la laajee fan ban suuf moo gën a bari richesse neel eh. cimetière yi. Eh. parce que li ñu fa suul ci xam-xam boo xam ne jotuñu ko utiliser. Eh. li ñu fa suul ci capacité boo xam ne waroon nañ ko mën a exploiter defuñu ko ba waaj a dee. Mm-hmm. ñu suul kook moom kon. Euh, armée li daal mooy place bi. <laughs> effectivement <laughs> kon nag loolu. képp koo xam da ngay naan damay yaatal géew ba nga xam ne képp ku ne euh, lu ubbi naa làmb ji ba nga xam ne ku bëgg a rek ñëwal. Mm-hmm. ci loolu la euh, yëf yi di feeñee. exactement mais aussi appel à la candidature boobu est-ce que nekkuloon benn benn promesse électorale. électorale. peut-être mën na ko mën na koo mën na koo nekk ah, wala vision boo xam ne wala xalaat boo xam ne. Mm-hmm. balaa ngay gérer nga koy teg. nga dem ba ci biir nag gis ne. lii moom il faut mu am exception. Mm-hmm. peut-être lële. moo nekkoon règle lii nekk exception wala contraire bi. <laughs> mais il faut mu am loo xam ne euh, nomination directe lay doon. ci sama hmm. gis-gis exactement hmm. ci nomination yi dafa am yoo xam ni euh, daanaka il faut ñu def si benn taxaw seetlu comme kaaw kii di Papa Alé hmm. nu yàgg wax ni euh, fële ci a ay injustices yoo xam ni dinañ ko daal di jubbanti est que nomination Papa Alé foofu la ci RTS bett na la. premièrement damay wax ne changement dafa baax rawatina. aju ci wàllu gestion boo xam ne bu général la mhm. loolu changé di changé waat daf ci daf ciy baax mhm. euh, nga xam ne loo mën mën mën boo joxee keneen xëy na mën na indiwaat beneen touche boo benn touche boo xam ne mhm. xëy na indiwuloo ko woon bu ko defee itam géew gi euh, mën a yaatu comme ni ma ko junjee bu ñëwee ci kaw Pape Ali euh, responsabilité bu rëy moo koy xaar naal bu yaatu la parce que foofu kër la goo xam ne paramètres yi dafa dafa dafa bari li hmm. euh, yu bare bare bare war na war na war na ca am hmm. maanaam euh, role am nag hmm. mooy mu def RTS RTS rajo télévision sénégalaise bu nekkee loolu rek loolu mooy loolu mooy mooy rôle bi mooy lan mooy maire ba nekk euh, suñu yaay ja nekk fongali bi mën cee gis boppam ki nekk fii ci Dakar mën cee gis boppam Euh, sénégalais ba nekk ci bitim réew mën cee gis boppam. ki opposé mën cee gis boppam. ki nekk ci pouvoir bi mën cee gis boppam ki nga xam ne euh, régulateur social la euh, société civile yi mën cee gis seen bopp d'une manière objective absolument lii bu amee rek loolu mooy rôle bi nga xam ne R bi li muy firi dina ko firi T bi li muy firi dina ko firi S bi dina ko li muy firi dina ko firi bu ma ñëwee ci la personne en tant que telle nag gis naa ne mën nañ jàpp la personne qu'il faut la à la place qu'il faut parce que man ànd nag moom ci biir Sénégal ànd nag moom ci bitim réew. bokk nañu waruwaay yëpp. avion lu ko dalee avion ba <laughs> ba ba lu kii bokk nekk ay benn moment. ñuy dem ba dugg ci ay studio yoo xam ne ca bitim réew ñuy def genre émission ne bii lan nangam ak nangam kon personne bi am na lu ma euh, ci xam. parce que sur le plan professionnel kenn du wax ne moom du professionnel. Mm-hmm. kenn du wax ne moom wàll yaan la ci secteur bi nga xam ne dénk nañu kenn du ko wax. Mm-hmm. intelligence bi itam am na ci expérience bi euh, am na ci. Mhm. Euh, léegi nag euh, loolu boo ko amee boo boo boo falee fu mel ku mel noonu ci place yu mel noonu. Mhm. yaakaar nga ciy mën a def nga ciy mën a amandi. Mhm. ba mu commencé di def. bu commencé di def di def di def ba ci kanam nag ci nga koy mën a évaluer. mais jàpp naa ne daal moom en tant que xam bi ma ko xam. la personne en tant que telle. ak li nga xam ne mu ngi koy euh, def ci biir askan wi ma koy gis. Mm-hmm. mu nekk beneen xam loolu jàpp naa ne mën na euh, def. Mm-hmm. Euh, li nga xam ne moom lañ koy séentoo ci ci mm-hmm. fal boobu. mais aussi si wàllum gestion bi ñu si bëri yaakaar jàpp nu ni ki nga xam ne moo di Pape Alé am na maîtrise si li nga xam ne mooy gestion boobu parce que bu ñuy wax RTS naam Pape Alé Niang journaliste la du journaliste professionnel comme ni nga ko waxee léegi léegi. mais ci wàllum gestion bi est-ce na ko bu baax mais euh, yëf yi euh, loolu la sénégalais en général bu miinee dara. day dem ba jàpp ne loolu rek la sénégalais sax boo ko doon dóor chaque jour suba teel nga dóor ko benn yar. boo xëyee dóor ko rek mu ne ah yow dóoroo tey <laughs> dóor dóor ma dóoroo ma tey bu lu ñu miin rek. ay nostalgique lañu yoo xam ne lu ñu miin rek euh, dañuy jàpp ne loolu la daanaka sax être humain bi moo moo moo mel noonu. mais ci wàllu gestion. personne bi. Euh, Pape Alé hmm. mën na ko def parce que gestionnaire la avant ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy fal hmm. foofu kii hmm. peut le plus pour le moins comme li ñu li ñu li ñu doon wax kon euh, yaakaar mën na am ci côté boobu ci côté gestion bi ak côté profession euh, bi nga xam ne mooy métier mi wax nga dëgg moom journaliste la journaliste la waaye neel gestionnaire la itam te itam yëf yi am vision rek xam li la tax a jóg hmm. xam ñan la ñoo la ciy jàppale. Hmm. ngay pouse muy dem. Hmm. ngay corriger di di di yokk di wàññi. Euh, yëf yi di dem di di gën a taxaw di gën a taxaw ba ba muy euh, ba muy ba muy taxaw. parce que ci euh, ci côté boobu daal côté gestion bi. awma ci dut ne. personne bi ñu fal mën na ko mën na ko gérer mën na jiite daal euh, kër googu nga xam ne dénk nañ ko. exactement très important alors euh, si euh, Pape Alé boo génn nañu dese ni ba tey ndax gis nga daanaka jàpp na bu baax a baax ci lii di projet PASTEF tëj nañ ko fii. sonal nañ ko fii daj na fi lu ne. ñu si bëri doon wax tey jii bu nuy soppi lii di RTS kenn yelloowu ko ki nga xam ne nag moo di Pape Alé Niang démb gis nga loolu la yàlla dogal est-ce que jàppoo ni benn récompense la ci li nga xam ne nag mooy lu mu bi. warul nekk récompense warul nekk récompense te ñoom annoncé woon lañ ci commencement bi ne ñëwuñu fi pour pour euh, ne yaa def lii kon il faut ñu jox la benni benn mm. part. moom de fi ma ko doon fi ma doon euh, nar a jàppee ne récompense la. Mm-hmm. Euh, mooy ñu ne Pape Alé yow dañ lay def pilot léegi kay dawal avion bi mm-hmm. Air Sénégal yow yaa koy dawal. Mm-hmm. bu boobaa damay naan xaa mbaadu <laughs> mbaadu li mu jàppoon ci combat moo tax ñu jox ko loo xam ne. xamu ko moom mënu ko xamu ah. xamul bouton bu rouge ak bu lan lay firi ci ci avion. Ah. mais bu ma gis parce que objectivement laa lay laa lay wax objectivité rek. Ah. maanaam euh, bu ma gisee. Euh, euh, xamee ni ma xamee capacité wu euh, ki ñu fal. Mm-hmm. ak li ñu ko fal damay jàpp ne lii mën na ko puus mu jëm kanam. exactement mën na koo puus mu jëm kanam xëy na nag taxaw na ak projet baak mm-hmm. défendre na ko ba nu nga ko waxee tëj nañu ko yooyu. xëy na loolu itam liggéey la boo xam apport la boo xam ne. Mm-hmm. def na ko. mais jàpp ma ne loolu. war na tax ba. Euh, ñu ne ko kaay jël lii. Mhm. kese kese te fekk loolu rek la. Mhm. parce que toujours damay euh, misaal mi ma ciy faral di joxe mooy boo demee garage. Mhm. kay naan aywa Thiès Thiès Thiès Thiès kaay Thiès cette place Thiès Thiès. kooku demul. jërëjëf kooku sër la tudd. bu kiiyee ba oto bi ñu ne am ah, fees na mu def këyitam rek dal di kii rek gaa yi départ. boo demee ba ci euh, yoon wi boo laajtee ne ana waa ji. dañu naan demul. demul waaw parce que ku nekk ak sa rôle bi ngay joué ci biir mm. société il faut sénégal yi am mentalité boobu. absolument il faut ñu am mentalité wu ne yëf yi équipe la. Mm-hmm. il faut nga am mentalité ne euh, yaa wuutu sa morom mu wutu la. ci li nga nekk nga euh, nga xam ne itam fekk yëf yaa ngi dox rek. Mm-hmm. amul solo ci ne maa ko def wala keneen a ko def. Mm-hmm. mu ngi mel ne équipe de football. nga xam ne bii bu bu duggee rek ki ko ko paas ak ki ko dugal yëpp. Uh-huh. ak ka taxaw na la di taxaw foofu ñoom ñëpp ñoo dugalandoo bii bi. Uh-huh. tànku kële rek moo ko door mu dem mais ensemble bi yëpp ñoo dugal bii bi. mentalité boobu la ñu war a commencé di gas ci sénégalais yi. Mm. ñu génne ci opéré leen génne ci mentalité wu pàccoo wala pencoo wala mm. wala ay calcul yoo xam ne. ay coutume moo ñooñu ko teg. très important alors ci beneen nomination dinañ si euh, def benn taxaw seetlu muy général Moussa Fall daanaka bu